Michel Legrand salaamaaleykum waa dixième euh, vraiment maa ngi jégalu bu baax a baax euh, si guddiwaay bi parce que depuis 17 heures ba léegi yaa leen toog dañu xaar lii mooy wane seen conviction bi ngeen am si Habib Niang mouvement Soxla Thiès li may wax rek mooy maa ngi sant bu baax a baax waa camp Michel Legrand di sant aussi tamit waa Jaxaaw waa jéggi raay ñoom day sekk ñoom lisu groupement yi xam na tey ñoom ñoo tax tey ñëpp tey ñu invité yeneen groupement yi ñuy teewee li may faral di rek mooy eh, ñun mouvement ànd soxali Thiès mouvement bu xam ne bugguñu ay ŋaayoo moo tax maa ngi sant waa camp Michel Grand bu ñu ñëwee seet si ma ni ma président lii nga def biir camp bi lu musul am la ñun si bopp ay doomu ay jabaru policier nañu dañu bëgg a jóg ñëw rendre la njukkal pare nañu wax la ko ma kontaan si loolu ma ne leen nag ah xam nga ne biir camp bi cantonnement amuñu droit def activité politique mais yoon may nañu ñu def si biti si loolu laa leen ñaanee ma ne leen camp bi jaxaaw dixième yëpp benn la kaa leen ñu def ko bu doon benn ñu doorandoo ñoom ñu nangul ma ko donc lii kontaan naa si yéen li may wax rek mooy yéen de joxuma leen benn dërëm man xalaatu moon tey lii nga xam ne tey yàlla ma ko indil man li may wax rek mooy toujours damay nemmeeku sama lan sama militant yi li may njëkk lu ma gën a frappé mooy mouvement ànd soxal Thiès ñu fi nekk ñëpp kenn si yéen ñii suul far si benn parti bu fi nekkee opposition la nekkoon ñëw fekk si ma amul kenn ku xam ne affaire la nekk ñoo ne biir bi mu ma soxje amul li may wax mooy di leen sant di leen gërëm jot naa barki dem ma seen fiche de parrainage yi bi mu gisee sax dama yéemu léegi bu du mootu ma joxandi chiffre parce que boo joxee mooy dañ koy weddi mais weddi gisal boppam di sant bu baax di gërëm lii nga xam ne am na li may wax rek mooy parrainage bi nag jeexagul ñun dañuy continuer wax naa mouvement ànd soxla Thiès mooy mission mooy leen mooy 10 000 signatures la bugg a teg ci loxo président 10 000 yooyu xam ne moom la ñu jaay ci carte de membre moom laa bëgg ngeen def ko signature pour le parrainage démb rek président des jeunes intervenant dafa ma interpellé ma carte yu xam ne nekkoon fii dafa jeex 10 000 yi nga xam ne président moom moo nekkoon ci euh, ci biir permanence bi jeex na commandé nañ yeneen carte li ma leen di ñaan rek mooy fexe leen ngeen jox ma 10 000 signatures ma jébal ko le président public pour wane que ma ànd Soxla Thiès ñu ko doon xeex mu ngi fi di liggéey li may wax rek mooy li may ñaan aussi mooy parrainage bi aussi bugg naa lan mu doon lan mu doon ay sa carte électeur bugg naa bu boobaa ñëpp xam ne ma ànd Soxla Thiès bu président jëlee Thiès ngir yàlla ak ma ànd Soxla Thiès la xam naa loolu di ngeen ma ko defar kii wax na ko sànq man duma àndal ay mag bu ñàkk fayda du ma àndal comme ni ñu koy waxee ay góorkatu marto ñu ma àndal mooy ay makku sincère kii wax na ko sànq Ablaye Mbaye yéen tey bu mu leen teew fi ba minuit fii ngeen toog di ma xaar maa ngi fàttali sama lancement bi ma defoon fii sama mouvement bi tey dugg nañ si at lu ko teg lan exposition la woon rek suba ba 17 heures añu leen fii ngeen toog di ma xaar di jégul di ma déglu donc moom li ngeen wax mooy kii wax na ba léegi jar naa leen ko man tamit ngeen xam ne góor ngeen seqal li ma leen di ñaan rek mooy bu leen nangoo bu leen kenn influence tant que Habib Niang waxu leen lii bu leen Massamba waxee bu leen ko gëm am na ñag benn wax bu mu wax bu ma dégg am na ñuy jaar di jóg ay fiches président Habib ñaar nañ koy jox loolu amul fenn fiche yi si permanence bi lay jóge fii nañ koy insérer képp ku xam nga indi nga sa fiche moom nañ lay defal la benn genre décharge en tout cas maa ngi sant di baax gërëm tey nag lu waral loolu mooy gis nga musikeer yi ma li may faral di wax mooy sama ñit yi mouvement bi ñoom ñooy sama xol ñoom ñooy sama tànk man yàlla ma jaral yëpp gis ngeen lii nga xam ne tey moo am biir dëkk bi mooy feebar bi tey mooy laan mooy deng deng sànq sama mbokk bi mairie wax na ko moom santé lay def deng c'est comme maladie bu xam ne comme fièvre jaune bu yàlla si yàlla musal bu dëggee musiba la man moo tax ma xar sama tànk en passage maa ngi rep maa ngi remercier bu baax a la le directeur de PNDL le docteur Doudou Sène maa ngi koy remercier bu baax bi mu ko demee seet yi ma ne ko docteur damay politique doon doomu Thiès bugguma feebar boobu dugg si sama askan bi mu ne Habib loo soxla ma ne ko soxla naa 1000 moustiquaires bu nekkee damay jënd saa je suis prêt pour jënd ay moustiquaires mu ne moustiquaire duñ koy jaay si boobu waa la ma jox mu ne mu jox ma bon ma dem ba train si arme bi ni jox ma. mille moustiquaires moo nekk nii ma ne ko yidee sama groupement yi laa koy jox sama mouvement laa koy jox parce que comme noonu nga xamee nawet bu jotee feebar yi bëri na tey si suba rek moo si mujj ñun tey le matin dañuy def benn tournée benn tournée de proximité di seet si ñi ñii nga xam ne maanaam si ay militante nañu conviction yi ànd ak ñun dañu tëddoon di feebar sibiri moo leen jàppoon ñi ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla yëkkati ñi ngi ñaan tamit Euh, jëkkër bi feebar yàlla na ko yàlla yëkkati li may wax rek mooy j'ai toujours l'habitude de le dire ñun politique lu ñu boole ay yéen ñun dëkkandoo moo ñu boole Cees yëpp benn bopp nañu ñun du ñu sànni kenn xeer du ñu saaga kenn du ñu xas kenn xam nga lu am solo mooy nañu liggéey population teg bët man de loolu laa xam nañu liggéey nañu bàyyi coow bi coow bi amul benn njëriñ et puis de passage aussi di remercier les responsables APR. soxna dem mu ngi fii Ramatulaay dem mu ngi fii soxna mbay mu ngi fii moom euh, man fekke naa waaw fekkee naa tamit président jox na ko cër lool moom bokk na si ñi nga xam ne ñoo créé APR chaque jour bu may suivre bi ma wootee ma ko tey dama nekk si benn donation de moustiquaire mais dama mujj ki doon la daggee soxlam ñëw seet si ma en tout cas li may wax rek mooy fi ngeen jàpp foofu la man gor laa di nga xam ne gor ngeen seqal li ma yittal mooy askan bi li ma yittal mooy lan mooy defar population bi moom yittal am na on a les ni comme ni ñu koy waxee rek les potentiels sont là maa ngi ñaan bu baax di leen gërëm ñëpp ñu fi teew di gërëm la presse tout le monde Habib Niang woote na yéen ñu fi te ñëpp kenn joxuma ko joxuma kenn paas joxuma kenn t-shirt joxuma kenn dërëm maa leen di sant bi may dugg sama bureau léegi-léegi rek indi nañ ma ñaata téeméeru indi nañ ma ñaata faneeru fiche de parrainage am na sax ñu ngi li may wax rek mooy parenage bi arrêté wul ñëw ni ñi continuer encore di jëlaat yeneen fiche di leen gërëm di leen sant bu baax a baax wasalaam maa leen di sant bu baax a baax di leen wax ni que rek li ma digoon naa leen ko mooy semaine passée mooy moustiquaire yaa ngi indi naa am na aussi yeneen ñu ñëw fu ñu toll ni aussi ni ngi préparé benn sargal bu mag sargal boobu dina dinañu xam est-ce que Habib Niang lu muy pesé biir Thiès bu xam ne groupement yoo xam ne bàyyi dinaar groupement yoo xam ne sopp sa jëkkër est-ce que réellement fonk nañu Habib incha allah rabbi bu ñu yàlla may egsi si danañuy fexe ku nekk dina mu presse bi si boppam Sénégal yëpp addam yëpp danañu xam ne mouvement Soxi cees li muy liggéey biir Thiès en tout cas bu baax a baax guddi na maa bi di di leen sant bu baax a baax jërën sant yàlla na yàlla taxaw yàlla na yàlla jàppale wasalaam